salaamaaleykum Sénégal sénégalais yi nekk fii ci réew ak sénégalais yi nekk euh, bidim réew ñu ngi nuyu di leen ndokkeel di leen sargal di leen it di leen euh, ziar ci àjjuma di. tàmbalee tey suñu beneen live bi ci situation bi nga xamante ne ni Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët ñëpp yëg nañ ko muy l'affaire Pape Alé di ko masawu di ko sargal di ko ndokkeel di ko fàttali rek ne lii day firndeel. que bokk na ci les vrais combattants de la république parce que réew moom booy xeex ak nguur lu ne dañ koy sóoraale lu ne dañ koy préparé te xam ne du yomb masawu ko ci peine bi mu jël presque danam maanaam tayle lu bëri lu mënoon am ci ay teranga mu mu dëgg ko pour rek continuer di xeexal askan bi di dooleel.

di rek wax ne li xew Pape Alé bind ab livre ci ay rapportu IGE pour di ko fàttali askanu Sénégal di ko fàttali it nguuru Sénégal réponse bi ci état bi am mooy seet nuñ ko ci xokkatalee nuñ ko ci indilee ay problème ni ci yàqee deram après da naan yow ban réew nga nekk réew moo xam ne quand des citoyens s'organisent quand des citoyens se battent pour la vérité pour la sincérité pour lumière ci yenn scandale yi am ci réew moomee la réponse de l'État ce n'est pas dem ci contenu la xew c'est de s'attaquer à la personne xool comment salir son image xool comment le décrédibiliser xool comment yàq deram yàq ay affaire Mhm. après tu te dis mais c'est dommage c'est dommage que nos leaders comprendre luñ dara quand l'État du Sénégal Macky Sall bi muy def campagne électorale mu ne damay renforcer en moyen en équipe en équipement les cours de contrôle de l'État pour que képp ku ñu dénk alal réew ñu gën ko mën a càmbar gën ko mën a saytu tourné ci même discours boobu ne ne partisan yi bu ngeen ngeen xam ne du ma ci làq kenn képp ku ci am lenn lu ñu la taxal lu na la tumaal dinaa bàyyi justice mu def liggéey nam ko waree du ma ci intervenir pour quoi que ce soit waaw rapportu IGE kon bu génnee ñun askanu Sénégal liñ ciy xaar mooy mu am ay résultats yu anko mais li am en réalité mooy nguuru Sénégal non seulement fulaalul rapport parce que def ca lam ca war a def communiqué wu ca lam ca war communiqué mais dañoo gis ay voix autorisées yu demee ko comme Boun Abdallah Dionne naan ay tubaab la ñu nekk ca France tugal def seen ay rapport wax ko lii fulaalu yi ça veut dire l'état du Sénégal mi ngi non seulement dépenser suñu xaalis pour ces ces corps ces corps ces de contrôle mais en même temps l'état du Sénégal à travers la voix de son ex-premier ministre est en de décrédibiliser des corps de contrôle de l'État c'est grave c'est-à-dire corps de contrôle de l'État mooy maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy saytu ñi nekk ci mbirum nguur gi te ñu dénk leen alal ñeneen di saytu waa nguur gi ci seen bopp nee nañ ñooñu duñu dara ay tubaab la ñuy taxawaalu di wax ay wax mais est-ce qu'on se de la gravité de ce que Boun Abdallah Dionne a dit est-ce qu'on se rend compte de la gravité de comment l'État du Sénégal néglige l'importance du contrôle dans ce pays-là ki nga xamante ne nag moom moom sàcc la ñi mu ànd ay sàcc la kooku nag gardien du ko neex ku kooku nag du bugg ko contrôler parce que ku jub da ngay renforcer ku lay saytu ku jubul munoo bëgg ku nekk ci mbirum saytu munoo fonk ku nekk ci ay mbirum saytu ñaata corps la ñu créé moom créé na sax corps pour corruption OFNAC Nafi Ngom Keïta ma fa nekkoon def na ay rapport mais rapport yëpp ñu ci ay tiroir alors que tout le monde sait que de contrôle de l'État yooyu bu ñu defee seen ay enquête ba noppi dañuy jébbal benn bi président jébbal beneen bi yoon bu ñu jébbalee benn bi yoon mais yoon dafa war a auto yoon dafa war a ne ok jébbal nañ ma rapport rapport biñ ma jébbal y a des mises en cause am na diw ak diw ak diw ak diw justice dafa war a dem autosaisir sur cette histoire dem jëli yi ñooñu laaj leen l'enquête leen boole ko ak rapport yëpp pour mën a xam lan la dëgg lan la dëgg bi nekk ñu publier ko askan bi su mun a suivre traçabilité seen ay milliards fu mu jaar suñu xaalis fu mu dugg ak fu mu génn loolu yëpp amu justice bi en réalité président lay xaar quand la justice est prise en otage quand la justice elle est liée quand la justice écoute et reçoit des ordres de l'exécutif il y a un problème dans ce pays et nous sommes face à cela et pire pire non seulement on ne respecte pas les cours de contrôle de l'État parce que ils ont fait des enquêtes jébbal ko dañ ko war a jébbal ni lii la ak kii la kii ak kii ak kii kii ak kii ak kii ñoo sàcc kii ak kii ak kii ñoo lubal kii ak kii ak kii ñoo def nangam justice non seulement deful liggéeyam mais ci kaw loolu Macky Sall ne léegi nag moom sax damay créer benn commission maanaam bu cour de contrôle defee l'enquête ba noppi jarul sax mu koy jébbal justice léegi na ko jox benn commission Mais l'autre, tout le monde sait c'est une façon de noyer le poisson. C'est une façon de nous dire que des am dilettance, ça veut dire que l'enquête du moussa egg, du moussa aboutir. Jamais la vérité n'éclatera. Jamais. Parce qu'il y a un pays africain on a vu l'exemple. Quand l'État crée des commissions de malversation ou de, ou détournement de fonds, de deniers publics, ou d'enrichissement illicite, à chaque fois, ces peuples-là n'ont jamais eu de réponse. Et Macky est en train de nous faire, de décrire le nom du Sénégal sur la liste de ces pays où y a une totale impunité. Macky est en train d'inscrire avec des lettres en or le nom du Sénégal sur la liste des pays les plus corrompus, des pays où il a aucune justice des pays où la justice est à deux vitesses, tenue en otage, où la justice n'a aucune raison d'être, parce qu'elle n'est elle pas capable de décider elle-même. Donc, nous, notre pays, notre cher Sénégal, est dans la liste, et sur la liste, autant pour moi, de ces pays-là les plus corrompus au monde, si ce n'est aujourd'hui le pays le plus corrompu au monde. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave pour l'image du Sénégal. Ça, c'est grave pour les, les gens de valeur qui vivent dans ce pays et qui continuent à avoir ces valeurs et qui le prônent. kon ñun askanu Sénégal nos politiques à cause de nos politiques notre suñu terre est souillée ils sont en train de souiller la peau ils sont en train de souiller euh, la réputation des Sénégalais nos hommes politiques sont en train de l'image du Sénégal, de par leur comportement, de par leur agissement, de par leur politique, de par leur focolé, de par leur manque de respect des lois et règlements, de par seen ay abus de pouvoir seen ay propre bëgg-bëgg seen ay propre sabab. La justice n'a aucune raison d'être parce qu'elle ne, elle n'est pas capable de décider elle-même. Donc, nous, notre pays, notre cher Sénégal, est dans la liste, et sur la liste, autant pour moi, de ces pays-là les plus corrompus au monde. Si ce n'est aujourd'hui le pays le plus corrompu au monde. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave pour l'image du Ça, c'est grave pour les, gens de valeur qui vivent dans ce pays-là et qui continuent à avoir ces valeurs et qui le prônent. Comme nous, à ce que nous, Sénégal, nos politiques à cause de nos politiques notre suñu der est souillé ils sont en train de souiller la peau ils sont en train de souiller euh, la réputation des Sénégalais nos hommes politiques sont en train de salir l'image du Sénégal de par leur comportement de par leur agissement de par leur politique de par leur foqale de par leur manque de respect des lois et règlements de par sen ay abus de pouvoir seen ay propre bëgg-bëgg sen ay propre sabab seen acte de pouvoir yi ñu bëgg di ko imposer tout le temps seen dictature yi ñu bëgg di imposer seen gabegie bi ñuy gérer li ñu moom seen folklore bi ñu nekk folklore parce que démb rek pour une pour pose première pierre benn stade stade de cinquante mille places benn stade de cinquante mille places Macky encore mobilise des millions de notre contribuable pour faire une campagne déguisée mais pose premier pierre stade ana ministre des infrastructures ana ministre des sports ñooñu ñooy dem def ko dans un état sérieux le président n'a pas le temps d'aller poser une pierre pour un stade je suis désolé un président qui a le temps d'aller poser une pierre pour benn stade ça veut dire que ce pays là amuñu liggéey un stade mais stade quoi stade est-ce que ne moo stade moo tax suñu président bàyyi liggéeyam palais dawal otoom dem ba Diamniadio fekk ñu mobiliser fa des centaines de sénégalais ñu yendu fa avec l'argent de notre pays de notre trésor public ñu dépensé ko utiliser fo fay leen jox leen ay t-shirt jox leen ay car yàpp leen fa nit ñi toog fa di xaar président mu ñëw pour poser une première pierre au stade alors que nous on t'attend Macky Sall pour que nga poser les premières pierres d'une justice indépendante pose la pierre de cette justice indépendante, pose la pierre du respect des lois, des règlements, pose la pierre du respect des populations, des citoyens, pose la pierre du respect de ce qu'on appelle les libertés, des droits, des individus. Ce sont ces pierres-là les gens nous posent tout. Pas ben stade, pas ben pont. am sa kër sax léegi mu ñëw inaugurer la ko wala mu ñëw poser la sa première pierre. attention kuy peinture sa kër defal attention balaa mu ñëw mu posé la pierre bi wala mu ñëw euh, campagnal la ko wala mu defal la ko inauguration si dans ce pays qu'on se trouve aujourd'hui dans ce pays la ñu nekk aujourd'hui mais jot total quoi beneen aspect bi ma bëgg a wax ci loolu noonu mooy que ne quand aujourd'hui les sénégalais se réveillent amuñu information xamuñu lu xew ci réew mi sur des dossiers sur des sur des financements de projet yu projet bi gën a regardez pour revenir encore ci stade bi cent cinquante et quelques milliards alors que un stade bu mel noonu bu ko gën a dàq gën ko ëpp place soixante mille Côte d'Ivoire ailleurs à cinquante milliards cinquante trois milliards ça veut dire que nous on donne des chiffres on dit des chiffres jamais on a la possibilité de traquer ne serait-ce que le petit franc de ce que l'État du Sénégal dit que moom lay dépassé ci ay projets ay projets publics jamais parce que même les corps de contrôle yi état du teg pour ñuy saytu yu demee noonee ñoom ci seen bopp l'État moo leen di affaibliraat en jetant du discrédit ci seen kaw pour wax ne que ay ay tubaab yi taxawaalu lañu rek ay nit ñu nekk fële di bind ay rapport <coughs> je m'explique mu nekk lu doy waar mu nekk loo xamante ne nii ça m'émeut franchement ça m'émeut damay toogaat ma ne mais attends man on dans quel pays mais on est dans quel système mais fan la ñu nekk ñun ci lan la ñuy dund ci lan la nekk la Sénégalais yi nekk di dund moo tax dafa am importance que les Sénégalais restent sur leur garde dafa am importance. que des gens comme Pape Alé yi nga xamante ne dañu dëddu yu bëri pour rek nekk ci ay soxlay askan ñu def attention parce que les gens ne cesseront de jeter du discrédit seen kaw les gens ne cesseront de yàq seen der et je Y'en a marre est l'exemple parfait pour cela depuis sa création amul lu ñu déggul depuis la création de Y'en a marre lu ñu déggul mais yàlla def na ñun ay monaat lañ ñun moom ay monaat lañ soo tollee fekk say kaba ñu tëppoo suñu këll soo noppee ñu yooyu eggali suñu yoon yàkkamtuwuñu dara yàkkamtuwuñu dara di renforcer Pape Alé ko wax ne ko lii yi demee nii la yii ça ne fait que parce que soo nekkee ci am réew pour encore l' exemple de Yàlla Mar et que nit ñi nekkuñ à côté à gauche à droite di la critiquer di la wax yenn yi di yàq sa der di la sosal di la créel parce que li ngay def peut-être eggul fa mu war toujours rek jàppal ne au moment où certains ont le malin plaisir ou le temps mais vraiment quoi temps to pour yow di la accuser di la discrédit di la nangam di la sangam sangam ça veut dire que yow li ngay bi ngay liggéey pour sa réew yaa koy jot. yaa ngi yegg foofee nee naa la un activiste bu demee bañ ko ne kirtim jàpp tëj kaso kooku wàccoon na ak activisme wàccoon na un militaire bu dem guerre ñu ne ko paapal kooku wàccoon na ak waaye ku ne ci réew di wax nag dangay ngay nangu rek ñeneen ñi di wax ci yow mais sa combat mooy ba lu ñuy wax duñ la ci mës a fekk duñ la ci mës a fekk parce que depuis 2011 ñun lu ne doomu aadama yekk na ko suñ suñ kaw der ba tey kenn mënu taxaw indi la preuve ne li ñuy wax dëgg la ba tey kenn mënu taxaw wax la nangam sangam c'est rek juste des gens ñoom loolu moo leen neex bugguñu bugguñu kenn dem ñu dara dem alors que réew mi fi mu toll dafa soxla loo xamante ni askanu Sénégal doolel seen bopp booloo que bañkat yi retrouver wu sur les les vraies plateformes xeex et qu'il y a beaucoup d'espace ci plateforme yi des je je rêve que chaque jour mu am une autre plateforme ou d'autres plateformes yuy demander à ce que ñu wàcc à ce que askan wu pour ñu xeex parce que loolu moom mooy intérêt Sénégal il faut que activistes yi xeexkat yi di fële fu ne et que président bi débordé du xam fan la nit ñi nekk il faut que sénégalais yëpp fu ñu ci toll kenn ku ci nekk ku am benn baat bu mun a indi ñaari nit mais soxla nañu ci combat bi wooteel nit ñi wuyu la ñu wàcc nga wëcc sa waar am na solo ku ci mënti doon ak foo mënti nekk ak mu ci fee fond Sénégal ak ci bitim réew ak fu mu ci nekk ku ne rek am na responsabilité aujourd'hui mobiliser wu bokk ci xeex bi ñëw gën a jëmmal gën a dooleel réew mi mu gën am solo parce que ci foofu la toog toll loolu waral tey ñoo lànk demandé waat na encore autorisation defaat beneen génn bu mag beneen marche bi pëp ni ki àjjuma bii ñuy dégmal muy le vendredi vingt huit mais bii yoon dañu changer itinéraire parce que comme Sénégal moom Sénégal ñëpp la Sénégal fépp la nous avons jugé à l'interne au sein de Ñolank que cette fois-ci bugguñu dem obélisque bugguñu dem fi ñu demoon la fois dernière muy euh, fan mais dañu bëgg commencer fi ñuy woowee échangeur bu foire dox dem liberté 6 parce que il faut que aussi que les populations yi nga xamante ne ñun yabuñu leen ci ay car dugaluñu leen solaluñu leen ay que match yi di leen gën di jege bu ñu mun ñoom it mun ci participer à leur manière parce que yombul nga fayal sa bopp quatre mille francs ak deux mille aller deux mille retour surtout que essence yokku na surtout que transport public gën na jafe surtout que daf yoon yi gën nañoo compliquer donc plus ñu gën a jege askan bi plus mu gën a arrangé askan bi mu nekk une demande forte du peuple sénégalais qui nous demande à ce que aussi quand même ñu décentraliser parfois rassemblement yeeg marche yi bokk bu baax a baax ni mu waree looloo waral bi yoon ñu choisir euh, échangeur foire dox jëm fi ñu woowee rond point liberté 6 jaar ci deux voies liberté 6 donc donc ci foofu lay tàmbale bi ci dolli ne bi ñoom benn demee di demande ji bind autorisation bi joxe nañ ko bu yàgg ñu dem démb def seen l'enquête ak euh, préfet dama dama reetaan moo ma jàpp parce que on vient de se rendre compte compliqué donc plus ñu gën a jege askan bi plus mu gën a arrangé askan bi mu nekk une demande forte du peuple sénégalais qui nous demande à ce aussi quand même ñu décentraliser parfois rassemblement yeeg marche yi pour que ñoom ñu mun cee bokk bu baax a baax ni mu waree looloo waral bi yoon ñu choisir euh, échangeur u foire dox jëm fi ñu woowee rond point liberté 6 jaar ci deux voies liberté 6 donc donc ci foofu lay tàmbalee di ci dolli ne bi ñoom benn demee di demande ji bind autorisation bi joxe nañ ko bu yàgg ñu dem démb def seen l'enquête ak euh, préfet dama dama reetaan moo ma Parce que qu'on vient de se rendre compte qu'en réalité, le préfet au Sénégal, c'est juste un titre, ce n'est pas une fonction. C'est Pourquoi Parce que hier, ils se sont retrouvés avec des agents liés ministère de l'Intérieur pour ñu enquête leen ci itinéraire bi ñu tànn pour dem def suñu marche pour dem def suñu marche on s'est retrouvé que biir commissariat bu fañ leen doon l'enquêter dafa am ay agent ministère de l'intérieur yu fa ñëw pour xam naka la nan la pour xam naka nan la donc ñun au Sénégal bu dee askan bi dañoo décider jën xeexal seen bopp xeex seen àq seen yelleef laaj li leen li ñu moom toujours état bi mi ngi trouver ay moyen yu xokkatale même askan boobu yu mu bësee askan boobu la muy liggéey du ko mën liggéey ca na mu waree waaye ñu wax rek que incha allahu rabbi jàpp benn ak ñoom Fatima jël seen temps téye leen de dix heures du matin à seize heures pour une enquête dix heures du matin benn ñuy woon ci point de presse su lu ñu bokk mu quitté parce que mënu woon toog président pour dem wuy ji ci l'enquête dix heures la fa jóge ba seize heures mi ngi commissariat bu Grand Yoff parce que c'est le fantasme des autorités que de prendre le temps des citoyens parce que ñoom dañu am jot xam nga ñoom amuñu liggéey nos institutions yi fi nekk ministres yeeg yooyu ñoom amuñu ñoom pas de liggéey donc ñoom foog nañ ne les sénégalais amuñu liggéey moo tax boo ñëwee sax def sa enquête pour une demande de marche ñu téye la fa de dix heures à seize heures ça veut dire huit heures de temps ma six heures de temps ñu téye ko fa des honnêtes citoyens yu am seen liggéey yu bëgg a ñëw demander une autorisation pour def seen ñax ñaxtu boo xam ne c'est demande populaire boo xam ne c'est le peuple qui l'exige la cherté de la vie électricité bi peuple bi moo demande à que ñëpp taxaw xeex des gens qui représente ce peuple là bàyyi seen liggéey pour dem daw gaaw def lànket bi taf taf pare ca ñëw ñu téye fa de dix heures à seize heures ay waxu caaxaan waxu kanam sa kanam loolu daf may permettre ma jànd ci tuuti benn mbir mooy Aliou Sané coordonnateur Y'en a ay bés mu yi ñu wees mu dem demander autorisation pour dem seeti Guy Marius Sagna ñu ne ko bindal lettre yokk ci sa carte mu bind lettre yokk ci carte d'identité ñu jox ko doyen des juges ñu tontu ko ne ko bokkoo ak Guy Marius Sagna tu n'es pas de sa famille donc amoo droit seeti ko <laughs> doo justice déedéet cest dire ñu ne ko yow doo mbokk Guy Marius Sagna quoi moo tax mënoo ko seeti cest dire Guy Marius non seulement dañ ko isolé mais dafa mel dañ ko dugal prison prison boo xam ne ni haute sécurité la pour les plus grands criminels ba kenn amul droit gis ko sous prétexte que Aliou Sané n'est pas sa famille amul droit ab autorisation dem seeti ko voilà dans le pays bi ñuy dëkk aujourd'hui ñun Sénégal alors que Guy Marius Sagna ñun ñooy premier mbokkam ñun askanu Sénégal ñun askanu Sénégal ñooy ay premier mbokkam aujourd'hui tout Sénégalais rêverait de pouvoir aller visiter ou rendre visite au national Guy mari Sagna ku munti doon nag foo munti nekk waroon nga mun a jóg rek wàcc sa école dem jaar tribunal ñaan permis dem rencontrer Guy seeti ko am nga droit bi parce que Guy amul famille Guy c'est le Sénégal sa famille Guy moomu boppam famille moomuñu ko ñun ñoo moom Guy Guy ñun lay représenter c'est nous sa famille ñun ñooy mbokk ñun ñooy lu mu am ñun ñooy am amam ñun lay xeexal ñun ñoo tax mu dugg ci kaso bi kon kooku ñun ñooy mbokkam parce que bu doon ay pexey mbokkam rek ay soxlay mbokkam rek mënoon dem liggéeyi comme tous les comme man comme yow comme kii di seetaan comme ñun ñëpp nekk ci liggéeyam nekk ci mbiram pour famille boobu ba boppam mais comme moom famem Sénégal la comme moom njabootam Sénégal comme moom xalaatam yëpp Sénégal la mëbëtam ak ak bëgg-bëggam sénégalais yi la moo tax famem boobu la doon xeexal ba tax ñu ko kenn ci famem boobu bëgg ko seeti ñu ne doo dugg seet ko voilà pays bi ñu nekk aujourd'hui voilà comment on veut salir l'image de Guy Marius looloo waral gars yi gars yi vraiment mais ce vendredi là lañ def vendredi bële passé suñu rassemblement bu mujj bi bii ñeent yoon lañ bëgg a gis ce nombre la dañoo bëgg buñ taxawee ci pont bi di dem rond point liberté 6 bëgguñu gis dara lu dul ay bopp doomu adama sortons massivement mais nañu génn en masse nañu génn génn génn génn génn ba kenn du xat ci yoon bi parce que c'est impératif parce que c'est impératif parce que lu tax mu impératif mooy que bu ñuy romb buntu camp pénal di dem bu ñuy romb buntu camp et on espère que ñun en toute responsabilité nous prendrons nos dispositions nous demandons à la foule de de de, de vraiment respecter ce passage bu ñuy jaar buntu camp pénal dañu bëgg Guy Marius Sagna dégg que ne le Sénégal est sorti pour lui il faut que Guy Marius fi mu toog mu dégg que ne le Sénégal est sorti pour lui que les Sénégalais sont sortis pour lui que fi mu nekk mu wéetu fa ginnaaw moom lañ jàpp téye ko waaye ñun ñëpp a koy dund penn pennu Guy Marius Sagna ñun ñëpp ñoo koy il faut que Guy xam ne penam wéetu ci ñun ñëpp a koy dundandoo ak moom na bruit bi jóg nañu dégg bu baax mu nekk en toute responsabilité nag c'est important que l'État prenne ses dispositions qu'il sécurise ni mu waree parce que autorisation woowu nekkatul débat Sénégal léegi autorisation moom nekkatul débat on a notre autorisation def nañ li ñu war def loolu nekkatul sax lu ñuy xalaat ak li ko waaj a ko mais que nañ sécuriser mais que askan bi incha allah nañu wane fermeté bu ñuy romb phase boobu pour egg liberté 6 avant ñuy def suñu ay allocution bu ñuy romb ci phase su camp il faut que gii dégg ñu ci biir cellule terroriste bi ñu ko dugal maanaam pax bi ñu ko dugal roq bi ko nëbb ñoom nëbb ko jant bi ba amul lumière ay santeem xamuñu fu mu toll condition mi compliqué na lekkul ba suur naan ba màndi kenn gisu ko kenn seetu ko fa mu toog ci roq bi muy dégg ne askanu Sénégal ni ñuy manifester pour moom muy dégg ne askanu Sénégal ñuy xeex pour moom moom la ñu jàpp waaye peine bi ñun ñëpp koy bokk tëdd gi yow la ñuy jàpp mais peine bi ñoo koy bokk tëdd parce que tant que génnoo ñun du ñu génn tant que génnoo ñun bu ñu jug tant que génnoo ñun du ñu toog tant que nekkoo si jàmm ñun du ñu am jàmm parce que sa jàmm mooy jàmmu Sénégal sa jàmm mooy suñu jàmm kon incha allahu rabbi Sénégal rendez-vous est donné ce vendredi muy le 28 na dëkk bi xonkaat na dëkk bi xonkaat cur morso yu xonk yi t-shirt yu xonk yi pantalon yu xonk kawas yu xonk mbaxane yu xonk na lépp xonk ñu génn ñun ñëpp joxe pont jëm Camp jëm jëm rond-point Liberté 6 te bu ñuy romb Camp na coow li jóg ba gii xam ne Sénégal jógal nañ moom moo ñu jógaloon ñu téye ko nañ ko jógal ba mu xam ne jóg nañ et est important et est important les gars ki la jógal nga koy jógal gii yaa ñu jógal dinañ la jógal ah Sénégal dinañ la jógal te leer na ma ne Sénégal dinañ la jógal tali bi dina xonk cur klaxon yi dina bëri bool yi dinañ ko tëgg cycle yi dinañ ko mbi di nga ñu dégg yow gii pax biñ la dugal nëbbu jant bi di nga ñu dégg dinañu romb te di nga ñu dégg laataa ñoo def suñu allocution dama ne la phase bi ñuy romb muy campanal gi di nga ñu dégg comme mënuñ laa seet si ñun di nga ñu dégg ñun ñu wéy la sargal la yëkkati la rang bi nga toll yu rang héros national Sénégal foofu laay yem ak yéen tey. ne jóg nañ et c'est important et c'est important les gars ki la jógal da nga koy jógal gi yaa ñu jógal dinañ la jógal laa ah. Sénégal dinañ la jógal te leer na ma ne Sénégal dinañ la jógal tali bi dina xonk cur klaxon yi dina bëri bool yi dinañ ko tëgg sifle yi dinañ ko mii di nga ñu dégg yoo gi pax bi la dugal nëbbu la jant bi di nga ñu dégg dinañu romb te di nga ñu dégg exercice laataa ñoo def suñu allocution dama ne la phase bi ñuy romb muy campanal gi dinga nga ñu dégg comme mënuñ laa seet si ñun di nga ñu dégg ñun ñu wéy sargal la yëkkati la rang bi nga toll yu raawu héros national Sénégal foofu laay yem ak yéen tey di leen jox dig daje ay bés ndax bu ñu jagasee rek dina ñëwaat ci yeneen i info dinañ ñëwaat ci beneen waxtaan waaye jàpp leen rek bu kenn tay bu kenn ragal bu kenn tiit bu kenn jaxle bu kenn am looy ragal man de dama doon dox tey ci suba anecdote bu ma leen nettali sama benn xarit bu paa ma dajeeg ci oto mu ne ma marché bi ngeen di waajal de je veux venir avec mon fils parce que sama doom cinquième secondaire lay def mais nee na ma il a envie de participer ci le rassemblement ou les marches pour Guy mari Sagna pour que ëllëg qu'il puisse raconter à ses petits que quand on marchait pour un héros national comme Guy mari Sagna moom bokkoon na ci mais Thiat est-ce que suñu suñ ñëwee yoraa ma ne ko père bul yàqal sa doom mu rentrer dans l'histoire bul yàqal sa doom mu rentrer dans l'histoire parce que aujourd'hui c'est se faire honneur que de marcher pour un héros national Quand notre président va marcher pour Charlie Hebdo, quand notre président va marcher pour Kobe Bryant, quand notre président présente ses condoléances aux Américains, ñun les Sénégalais, nous marcherons pour notre héros. loolu la foofu la ñu toll ñun les Sénégalais nous marcherons pour notre héros ñun gii mooy suñu Charlie Hebdo ñun ñun gii mooy suñu Kobe Bryant ñun loolu lañ xam ñun li ñu moom ñun lañ xam donc je dis indil sa doom mu ñëw bul ko yàqal mu rentre dans l'histoire parce que ëllëg dans cent il racontera que moom bokkoon na ci ñi marchoon pour la liberté du héros national Guy Marius Sagna et je demande à tous les parents de faire même parce que jàmm la ñuy woote marche bu leen kenn yàqal histoire ñëw leen liggéey et ku bokkul ci biir marche bañ xoxatal gii ba mu mujj comme Blondin Diop xam nga tey Blondin Diop la nouvelle génération xamuñu ko dañ koy dégg rek vingt et quelques années la am rey ko fële ca mais ñun ñuy fekkee tey nag jamono yi Guy Marius Sagna est-ce que on va accepter que Guy soit le prochain Blondin Diop parce que suñu responsabilité la ni bi Blondin bi gaañ bi ñu koy di di koy fàtt ci biir Gorée ñi bokkoon ak moom génération c'est leur responsabilité waaw c'est leur responsabilité benn pas ancien commentaire waxtaan nañ ci ma ne sen seen responsabilité la si on a perdu Blondin Diop non effectivement c'est vrai on ne s'est pas mobilisé le peuple était très mais aujourd'hui c' est la responsabilité de ces sénégalais là ñuy su fekkee ne gii nax saay na biir kaso c' est le prochain Blondin Diop ñun bu ñu ko seetaanee ñun ñoo ko seetaan et face à l'histoire nos petits-fils nous demandent des comptes nos petits-fils ils nous demanderont qu'est-ce qu'on a fait pour la libération de Guy Marius Sagna et j'aurais honte j'aurais honte de dire à mon petit-fils que defuma dara je n'ai pas levé le petit doigt j'aurais honte que l'histoire raconte euh, euh, au gril du palais ñu tëj ko affaire courant ñun Sénégal ñu abandonné ko ci kaso bi naxsaay fa comme Blondin Diop ça c' est une très mauvaise image du peuple sénégalais des 16 millions yi ko fekkee ñi image bu ñaaw man de du ma ci bokk te gëm naa ne yéen du ngeen kan moo ñemee gàddu responsabilité seetaan Guy Marius Sagna mu doon le prochain Blondin Diop au Sénégal ci suñu génération bi kan moo ñemee endossé cette humiliation pour les générations futures que l'histoire retiendra et que les gens sont en train de crier. Il y a le devoir de mémoire. Aujourd'hui, ce dont on doit se rappeler, c'est que les Sénégalais se sont mobilisés comme un seul homme pour libérer le prochain Blondin bu mu am muy Guy Marius Sagna. donc rendez-vous la donné ay bés xam naa fii ak mardi mercredi jeudi mercredi ou jeudi dinaa leen joxaat beneen dig daje ñu waxtaan ak actualité li xew xëy na fii boobu ndax xam naa ne moom nguur gi moom chaque jour actualité am chaque chaque jour ñu caaxaan chaque jour ñu def ay yëf chaque jour ñu am lu ñu wax ñu leen toog fii di wax ba suba duñ fi pare duñ fi jógee waaye jàppale ne rek incha allah mercredi ou jeudi ci beneen live ñu janowaat waxtaanaat fàttaliwaat leen itinéraire bi fàttaliwaat leen li ñu tax a jóg muy jàmm waaye Sénégal am fermeté ses représentants xeexal ko incha allah rabbi lépp lu fi juumoon nag sama sama dëng la ndax doomu aadama laa rek maa ngi jégalu ñëpp. di jéggal ñëpp di balu ñëpp ak di jaajëfal tamit ñëpp di ñëpp ñuy teewlu di wax diaspora bi s'il vous plaît bii le 28 bi tamit marqué leen la pas na leer na diaspora bi def ay action que la diaspora se mobilise même bu fekkee ne mu ngeen ko def ci seen ay ambassade parce que yéen soxlawu leen sax ay autorisation ay yooyu faites le sortez quoi s'il vous diaspora bi vraiment temps yi la diaspora elle est remarquable vraiment la diaspora on sent la diaspora du rek yéen a ngi génn yéen a def ay action on vous sent et on vous supporte et oh, c'est ça qu'on attend de vous c'est ça qu'on attend de notre diaspora du rek ay Western Union on attend aussi ça et ça c'est important et vous vous êtes en train de le faire nous vous exhortons continuer sur ce sur cette parce que ngeen jàppale ñu ci xeex bi jàppale seen bopp la parce que bu ngeen xeexee foofu ñu xeex fii ba yàlla may ñu ndam seen poche moo koy yëg seen ay situation moo koy yëg seen ay conditions moo koy yëg Sénégal métti na ñun ñëpp a koy waaye Sénégal lu métti métti ñëpp koy sumbandoo ndax suñ póot la ñëpp koy fóotandoo kon gaay yi wasalaam lu fi dëng sama bopp la sama coobare bopp la sama matadi la lu fi jubi suñu borom la di leen wax ne ah kon boog jàngeen jëf ma may leen luwaat suñu son boobu di yaanaamaar wasalaam jàngeen jëf ba ay bés incha allahu rek